Euh, effectivement tey dañoo ñëw euh, Kaffrine euh, ci cadre organisation Bessouf Setal Bessouf Setal nekk un concept bi nga xamante président initiative bi nga président de la République moo créé ko depuis août 2019 août 2019 nag da ko créé ci période bi nga avons dañ doon la campagne nationale de promotion de la propriété. bi mu institué mu ne du Fayem mais day sur le terrain aussi accompagner acteurs pour que pour mu jëmal loolu looloo tax le 4 janvier 2020 mu ñëwoon à Dakar génn ñëw accompagner ñu ñu def la première édition Nous avons ko defee nag na édition yi ñu ci teg bu amoon Kaolack beneen bi ñu ko def euh, malheureusement ñu am Covid 19 ñëw mënatuñu woon déployer sur le terrain et tout ça compte tenu des restrictions Nous avons bi def une pause orientée un peu activité mais biñ deme, demee ba gagné Covid bi président a ne il faut impérativement nous reprendre bésub setal bi reprise boobu nag mu lancé euh, le 4 décembre 2021 ci lycée Sergent Malamine Kamara. pourquoi lycée bi c'est parce que avons jël élèves yi ak nous ñi ñu def leen au cœur de l'action Nous ñu xol nan les jeunes yi ci liñuy def pour que ñom ñu mëna taxaw ba mëna euh, am éducation bi war pour mëna gérer les questions de propreté Nous avons ko défé Dakar la première édition relance bi ñu def nak plusieurs éditions def nañ 15 éditions tay ñu ñëw Kaffrine wara def nak euh, édition bi euh, le samedi prochain comme ni ma leen ko le samedi prochain c'est le 8. c'est le parce que besou setal premier samedi du mois là mooy journée bo xamante sénégalais yëpp ay guen nekul rek ben région gouverneur yi ak maires yi yëpp ay lëkkaloo pour tout simplement organiser ko le premier samedi du mois mais premier samedi du mois bi dafa tombé ak le er juillet mu nekkoon juste presque 2 à 2 3 jours de la tabaski ñu né dañuy décaler nak cérémonie bi pour permettre nit ñu gëna am possibilité préparer ko lolo tax ñu ñëw Kaffrine war ko def le 8. mais pour ñu def ko nak dafa may étape yu am solo étape bi ni moy étape bi nga xamantene moy CRD bi CRD bi gouverneur moy ñëw présider ko acteurs yépp ñëw wër ko ñu waxtaan teunk ay recommandations yo xamantene ne suñ leen woyalee dinañu permettre ñu vraiment ñu mëna organiser bes bi. au-delà du CRD dina am suba ben forum bu ñu def mooy euh, veille bi ben forum forum boobu nag dinañ permettre acteurs territoriaux yëpp ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom partager ak ñoom programme ministère bi ak toutes les actions yu ministère war a mener dans la région de Kaffrine su ko defee rek dinañ am ay recommandations yoo xamante dinañ ko noter pour que samedi bi ñun ñëpp aussi ñu mën a intégrer loolu ci dispositif bi. léegi nag pour organiser bésu setal cette setal la mobilisation la laaj certes population bi mais en même temps aussi il faut nga accompagner leen ak matériel moo tax ministère bi ñuy ñëw ñu wax ñu ne suñu ñu ñëwee ñu communiquer ak waa Kaffrine ne leen indi nañ leen euh, matériel de nettoiement petit matériel mooy brouette yi dina ci am ñeenti téeméer bu unité bu nekk boo xamante na tax au moins ñiy wàcc sur le terrain ñu am ci li ñu téye pour mën a liggéey mais loolu aussi du yem foofu parce que am nañ collègue Sonaged yi fi nekk yor matériel bu mag nga xam ay camion ay pl mécanique et tout yooyu yëpp dinañ ko mobiliser pour mun a jël aussi lépp luy xeetu mbalit mun ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu loolu ci benn objectif mooy nettoyer Kaffrine fexe ba Kaffrine set mais su Kaffrine setee waa Kaffrine ñoo ci njëkk bénéficié wu ci wërgu yaram mais aussi ci père lolu tax nak vraiment ma leen di wo ñom ñëpp ñu wara ñëw booloo ak gouverneur ànd ak maire ànd ak ñun wa ministère mais ànd ak aussi service technique état yi ak ñi nga xamante ñoy euh, tous les euh, agents du programme xëyu ndaw ñi parce que am nañ fi xëyu ndaw ñi à peu près ay 280 entre autres yu USAID SONAGED am nañ aussi wa cadre de vie bari nañ ministère de l'Environnement a insisté nañ ne am nañ une centaine aussi Nous avons dinañ fexe ñu mobiliser wu andak population yi ASC yi euh, délégué de quartier pour vraiment étape Kafrine bi nga xamantene nekul n'importe quelle étape parce que nous ñun dañoo nek ministère de l'urbanisme logement et de l'hygiène publique ministre bi en même temps aussi le maire de Kafrine ñu def ay yenen gox def ay yenen mairie donc su ñëwee bu Kafrine war war na am vraiment une particularité particularité boobu nak moy population bi nañu génn ñew accompagner ñu et que ñu def activité bi ñu réussir ko suñ ko réussir ba paré nak aussi il faut mu am suivi suivi bi nak ñi fi dëkk ñom ñokoy mëna def parce que mënu ma di joggé Dakar wala Fatick ga ma dëkk di ñew di suivre ay Fi à Kaffrine donc les premiers acteurs du suivi seront évidemment les populations de Kaffrine ma leen di invité ñom ñep ñu mobiliser wu ñëw xam ne li ñuy def day certes ñun dañ koy def parce que dañoo nommé wala dañoo am responsabilité pour def ko mais ñoom ñooy bénéficiaires yi ñu gën a góorgóorlu pour loolu mun a doon un succès et succès boobu dinañu gën a relancer sax ba suñu waree def 17e édition bi mu doon vraiment étape bu Kaffrine mu doon benn étape de référence boo xamante nañ ko mun di citer pour gën a mobiliser encore et motiver yeneen acteurs yi nga xamante ñu ci yeneen région yi merci